Sarr moo ko xamle nee na ab bagaar moo dox ci diggante Ahmed Ndoye ak activiste bi euh, di euh, Nit Dof naw bu ñu ko daal di invité nag moom fële ca Sénégal 7 moo doon am émission la fekk Ahmed Ndoye mu doon ne ko kan nga doon traité lu soxla borom ñaari turi ci noonu la ko daal di euh, nag moo violence bi également mu ngi di des ci ñi nga xam ne rek tey dañuy woowee seen bopp que ne ay militants lañ wala waaw mu nekk loo xamante ni comme li nga ko waxee xibaar buy doog di bees la Euh, dañuy ñaawlu peut-être euh, li nga xamante ni loolu la ñu gis parce que euh, intellectuellement parlant Sénégal war nañ dépasser <laughs> yi nga xamante ni moo ni mel parce que tellement que ni. bu fekkee Sénégal moom voilà léegi nag yooyu dañ ko war a invité wax dëgg yàlla ci ñoo xamante ni peut-être da ngay toog di wax ay nit di la diglu am na loo xamante ni su loo rek. Euh, du sa njàmbaar du sa coobare mais yàlla moo nam mu ci yow lu nu mel ne reste que ne nga fonk loolu war benn comportement boo xamante ni parce que jàpp naa ne souvent euh, bu ñu xoolee comme ci résime bi jàll comme moment bi fi ñu toll euh, ci alternance bi am mooy dañuy gis des fois ñaari nit bokk li nga xamante ni moom muy plateau sax moom la yëpp di gis mais même si jotaay public sax dañuy am jafe-jafe pour mën a déggante ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan moo tax euh, philosophe bi waxoon borom xel yu baax yi du ñuy discuter li nga xamante ni moom mooy ay idée te jàpp naa ne Sénégal tey teel pour ñu toog di discuter ci ay idée euh, dafay nekk problème mais à chaque fois ñu toogee ci li nga xamante ni moom mooy euh, dañuy dem ci ay di traité traitente ci li nga xamante ni moom mooy ay valeur wala di def li nga xamante ni moom mooy accusation personnelle et tout ça te moment biñ toll moom mooy à fois lu ma wax rek mooy que ni temps bi nekkatul ci wër di wax mais ci li nga xamante ni moom mooy posé ay acte la ñu toll est ce que nag tey bu fekkente ni ñaari nit soi-disant intellectuel ñu am benn benn étiquette boo xamante ni ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy xoole ñu am lu ñuy wax pour mën a jariñ nit ñi buñ demee vraiment toog ba nekk di euh, disputé ci ay plateau ba mu leen di yóbbu ci li nga xamante ni moom mooy benn guerre loolu euh, vraiment dañ koy woy di ñaaw la encore une fois jàpp naa nag peut-être même Euh, neer yi mën nañ mën nañ tàng kii mën naa am yu ni mel mais waruñoo na mën a àgg ci li nga xamante ni moom mooy selon en tout cas niñ ko waxee di weccoonte li nga xamante ni moom mooy ku vraiment loolu moom xaaruñu ko si ñoom wax dëgg yàlla hmm. en tout a civiliser que plutôt hmm. euh, li nga xam ne moo di xat-xat beeg wàllum euh, jafe-jafe yi mu ngi noonu wàllum napp bi jàppal na Sénégal ak moo Mauritanie si yéen accord de presse bu toll ci cinq cent li nga xam ne rek moo di accord de presse boo xam dina permettre ay doomu sénégalais mën a dem ci waaxu Mauritanie yooyu mën a wéy rek di fa samp euh, li nga xam ne moo di wàllum jën di ko indi fii euh, ci diwaanu Sénégal ñu jeexalee ko wàllum cocaïne boobee moom mel nag Sénégal depuis juróom-benn weer ba léegi lu toll euh, ci ñaar suñu tonne ci li nga xam ne rek moo di cocaïne teg nañu ko loxo ñi ko amoon nag bokk na ci wàllum ñi nga xam ne moo di les de l' économie ñu leen di wooyee diwaan loolee nag bu ñu ko estimé ci wàllum koppar daal toll na ci cent milliards de francs CFA récemment ci wàllum assise nationale yi sax nga xam ne rek ñoo yëkkati yooyu lay kàddu. waaw euh, xam nga dèjà euh, dafa am loo xamante ni nekkul euh, police moom moo wala nekkul condamnation moom moo koy régle nekkul aussi peut-être teg ay sanctions yu métti moom moo koy réglé parce que dafa am ñaari mbir yoo xamante ni Sénégal daf ci xaw a daf ci xaw a dund. en tout cas tout à fait le contraire par rapport rek euh, le monde entier ci fi nga xamante ni foofu lu yàgguloo gis nga li xew souvent da ngay jàpp benn kii ñu ne voilà dafa kii pour ñu bàyyi ko tout ça est-ce que nag tey bu fekkente ni loolu am na nga xam ne déjà am na si ñoo xamante ni selon information yi dangay dégg ñu naan dañuy kii di ma def de sorte quoi dañuy produit wala dañuy dem jëlee fii ak yu ni mel léegi nag nan lañ mën a def mooy am benn douane boo xamante ni bu mucc ayib la ñu continuer di moytu lépp loo xamante ni moom mooy corruption waaye aussi tamit di moytu lépp loo xamante ni peut-être moom mooy ay euh, fuite yi am ba li nga xamante ni moom moo drogue di gën di dugg peut être nag propos yi xamante ni moom mooy associé loolu lu ñuy sal loolu lu ñuy saluer la parce que jàpp naa ne euh, am na benn acte boo xamante ni économiquement parlant dina ko indiwaat parce que tey bu fekkee am na koo xamante ni moom nekkul benn euh, trafiquant bu mag wala nekkul benn vendeur mais peut être daf koy consommer muy dafay use li nga xamante ni moo ni mel kooku peut être boo ko fekkee lenn li condamné six mois jëm kaw et tout ça dèjà dafay amaat beneen éducation boo def ci moom éducation bu doy waar muy que ni à la place dañu koy corriger dafay mujjee bu génnee sax mën na ko pousser à ce que mu mujjee nekk nag benn dealer bu mag ak yu ni mel mais jàpp naa ne moom la question li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum trafic de drogue ak yu ni mel Sénégal loolu lu fi yàgg la te aw ma njort kani un jour viendra ñu mën koo lijjanti de façon définitive parce que même les grands puissants sax dañu am jafe-jafe pour jéem lijjanti li nga xamante ni moo moom mooy euh, di a en tout cas habitué lu suñu ay matukaay jéem a def comme ni ñu def muy proposition yooyu noonu su boobaa nag kuñ ci jàpp ñu jéem a xool nag mu bañ a am li nga xamante ni moom mooy yërmande appelé gi à la lettre li nga xamante ni loolu lañ santaane parce que tamit jàpp naa ne <laughs> du ma ne métier bu kii la waaye nag euh, vraiment calculer de sorte que pour ñu mën ko lijjanti moom dina jafe. en tout wàllum njàng meeg njàng ñu ngi wéy di indi rek ab coppati ci wàllum programme meeg gën a euh, a euh, jàngal li nga xam ne moo di anglais euh, xale yi bu ñu daal di duggee rek ci li nga xam ne moo di primaire ñu commencé ko di leen ko daal di jàngal ñu bëri nag ci élèves yi daal jot nañu ko daal di rafetlu bu baax a baax loolee nag moom premier ministre Ousmane Sonko moo ko daal di sàkk woon ci dernier ndajeem conseil jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal ak Abdou Khad ak ñëpp ñi nga xam ne rek jàpp nañ ci ba lépp yem ci kanam tuuti incha allah di ngeen ànd ak Mor li gën a fës wàllu émission boobu di wax sa xalaat ginnaaw gi 18 heures dinaa fi teew également ak Cheikh Omar Talla ñu fas yéene wooy daal di décortiquer li gën a fës ci wàllu actualité ànd ci également ak monsieur journaliste de formation di leen jaajëfal di leen ñaanal juma jàmm ak salaam mubarak jërë ngeen jëf